bu kër Boris Diop dama la bëgg a wan benn image nga wax ma lan lay teg si yow. Euh, fii euh, Rwanda la benn dëkk bu ñuy wax ñamata euh, mhm. at ma ñuy fagaagal Tutsi yi nga xam ne bés bu yàlla sàkk ñu rey ci lu mat fukki junni. Mhm. ñetti weer lañu tagale ñu bés bu yàlla sàkk ñu rey ci fukki junni ba ñu egg benn million. doomu aadama yëpp ay tutsi mm-hmm. ñu rey leen fii man man man dem naa fa. Mm-hmm. moom mooy moom mooy ñamata ngi leen dalal ci <clears throat> seen émission bu bees bi tudd héritage héritage nag boo ko déggee mooy ndono ci wolof ñu ñëw ci di ci àndax ay kilifa ay borom xam-xam yu nekk ci réew mi ñu ràññee leen lool ci seen liggéey ak seen xam-xam ak seen xalaat tey nag ñu ngi ciy àndax Boubacar Boris Diop Boubacar Boris Diop ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay euh, Pape. Boris bi fa la jógee. <laughs> Euh, man xam nga bi ma nekkee xale yi am na benn bindkat boo xam ne lépp lu mu bindaan buy génn rek ma jàng ko euh, ku amoon tur la ku siiwoon la jamono jooju ba léegi sax ñëpp xam nañ ko muy Jean-Paul Sartre mm-hmm. ay téeréem dama leen daan jàng di leen jàngaat am na ci euh, boo xam ne mu ngi tudd euh, les chemins de la liberté euh, xaw ma ñaata yoon laa jàng téere boobu les chemins de la liberté def ci am benn benn way jëmmal maanaam benn personnage boo xam ne daf ma neexoon lool lool maanaam daal bu doon sama sago ni ni moom lay mel euh, mu ngi tuddoon Boris Serguine Euh, deful woon dara muy dara lu ko neex rek la xamoon xam nga téere bi mu tudd les chemins de la liberté dafa mel ni dama ko ñeewoon et puis nag euh, xam nga léegi gone yi yaa ngi naan man maay Messi wala man maay Ronaldo mm-hmm. wala man maay euh, LeBron James. yaa ngi am ñaar ak jamono yooyu noonu. waaw mhm. alors man nag euh, nga xam ne vraiment moom laa bëggoon a doon moom laa bëggoon a doon moo doon Boris Serguine et finalement samay xarit boole ko ci sama tur. mu mhm. nekk euh, Boubacar Boris mais sama passeport boo ci demee Boubacar Diop rek moo ci nekk. Boubacar Diop Boubacar Boris Diop nga juddoo Dakar Medina. yaroo diggante Médina ak Thiès sa ba nga nekkee xale jamono jooju nan la meloon euh, xam nga dama nekkoon nit ku téye boppam bariwuma woon wax mm-hmm. buggoon naa buggoon naa jàng loolu nag fi mu jóge mooy euh, bi nekkee gone Grand Thiès kër ga sama papa ngi tuddoon Amadou Charles Diop. Euh, kër ga dafa amoon benn bibliothèque. ci wolof ñu koy wax kàggu. bu mag. loo mën a xalaat ci ay téere rek. ñu nga fa ay téere taalif ay téere maye ay téere nettali mais nag yu tubaab yi ay ñoom Victor Hugo Jules Verne maa ngi fàttaliku ñooñu Lamartine. dama daan nekk foofu nag di di kii di di di jàng téere yi mais nag li am ci man ni ma doon euh, euh, jàngee téere yi mooy su ma jàngee benn téere mu neex ma dama koy jàngaat ay yooni yoon mhm. du jàng rek benn yoon dal ne pare naa ci mhm. dama koy jàngaat ay yooni yoon de ba nga xam ne ñi nekk ci biir téere bi maanaam euh, way jëmmal yi mhm. tubaab di leen wax les les personnages damay dem ba miin leen. Mhm. ba bu ñuy wax sax dama koy dégg daanaka damay xàmmee ku ci nekk sa baat xam ni ngay ni ngay xalaate xam nga bu fekkee ne euh, foo toll yaa ngi jàng ay téere fekk sa moroom yaa ngi dem di doxaan yi walla ñuy dem di football yi walla di defi leneen. Mhm. Euh, finalement loolu da nekk di koo xam ne dafa dafa dafa dafa téye boppam. Mm-hmm. man nag noonu laa meloon. Mm-hmm. bëriwu moon daal ay dugg-dugg. Mm-hmm. bëriwu moon ay affaire daaw ma wax sax lu bëri te ñu bëri xëy na dina leen jaaxal eh, li waraloon loolu man ma nekkee gone damaa doroon ba yàqu. mënu moon wax comme ñeneen ñi xëy na loolu moo taxoon ma noppi damaa doroon ba yàqu xëy na léegi sax su may wax bu ko nit ñi déggee. dinañu xaw a sentir que ni kii euh, dafa góor góorgóorlu bay wax comme ñëpp. Mhm. fu ne damaa dama damaa faj sama bopp. Mhm. donc voilà loolu la loolu daal loolu loolu moo moo ëppoon solo. Mhm. xam nga nag bu fekkee ne yaa ngi yaa ngi jàng ay téere di leen jàngaat euh, boo demee boo boo nekkee école di nga am ay waaw di nga fa def jaloore di nga fa am ndam. nga am ay résultat yu yu baax. yan loolu moo tax loolu moo tax ma mu mujjee di bind euh, euh, maa ngi jë maa ngi jëkk a jàngee euh, Randoulène. fan la nekk Grand Thiès. Mhm. école Randoulène ñaari leen moo am Randoulène sud ak Randoulène nord. Randoulène tur yi boo ko déggee rek xam lu mu tekki mooy mooy jóge leen fii leen mhm. comme xam rek ay géejowaay wala wala kii xaar yàlla randu leen am na randu leen nord defe naa am lañu moom lañu tuddee euh, l'école xaaxaam aujourd'hui ah tey jamono jooju bi nekkee xale mhm. xam naa école baa nga fa ba léegi defe naa ne léegi beneen tur la am mhm. wóoru ba defe naa ne tur bi euh, soppeeku na foofu nga def sa l'école primaire foofu laa jàngee primaire après nga ñëw dakaar après ma ñëw Dakar def euh, lycée Vanvo mhm. voilà lycée Vanvo Euh, naa rek laa juddoo. Mhm. bon sama papa ñu affecté woo Thiès ma topp ko après am euh, euh, am entré en sixième. Mhm. daal di ñëw di jàng lycée lycée Vanvo. Mhm. jot naa def sax ñaari ñaari at CEG foofu ba tey Grand Thiès. door a ñëw nag à partir de la quatrième ba terminale ma def lycée Vanvo. te bi may def lycée Vanbo euh, sama papa fa la daan liggéey moom moo nekkoon li ñuy wax léegi intendant mais jamono jooju daawuñu wax intendant dépensier la ñuy wax waaw tawu tubaab ji la donc euh, maa ngi euh, nekkoon lycée Vanvo dëkk lycée Vanvo parce que mon père euh, dafa amoon logement euh, administratif euh, mais nag di gën a faral di nekk Médina nga xam ne fa laa juddoo à la rue 5 angle Blaise Diagne juste fi janook stade Iba Mar mhm. doon nga def tàggat yaram football wala basket wala handball. football football même au lycée vite vous football naa fa. <laughs> bon, je n'étais sûrement pas messie, mais bon, pas, pas trop mal non plus. Voilà. Mmh, oui, mmh, oui. D'accord. Si, en même temps, bon, aussi bien euh, Djaraf que Goré, beaucoup de quoi, voilà. loolu amoon na quoi. Mm-hmm. mais ça ne veut pas dire que j'étais extraordinaire. Mm-hmm. Mm-hmm. nga nga ñëw si sa si sa enfance si sa jaar-jaar après nga am sa bac Vanvo continuer di jàng Sénégal. waaw sa jàng yëpp Sénégal nga ko defee. yëpp Sénégal laa ko laa ko laa ko defee et euh, loolu euh, ci euh, ci samay maas ci sama génération bëriwul ñu mën a wax loolu mais dinaa ci dinaa ci yokk ne comment le bac amoon naa ko ak ak mention. Euh, amoon naa bourse pour dem bitim réew te bourse bi sax Lille la ma waroon a yóbbu maa ngi fàttaliku ay fani fan euh, rajo Sénégal di def ay communiqué di joxe sama tur ne bon voilà sama bourse may xaar mais man ma ne du dem lu tax xam nga boo ne wuy man ma ne duma dem dañ naan ah kii moom jàmbaar la woon dafa bëgg Afrique dafa bañ tubaab non non non lenn rek moom moom moom moom moo ma dem euh, daanaka sama yaay dafa néewoon doole. Mm-hmm. dafa doole euh, man mm-hmm. ma toog jël bourse Dakar di ko jàppale lu ma amoon moom laa moom laa koy jox. di ko jàppale di jàppale tamit euh, samay euh, samay rakk quoi hmm. ñi nga xam ne ci famille bi man maa leen xaw a tane loolu dem na ba tax ma nekk université di jàngale ay ay école privée hmm. pour mën a gën a euh, dimbali nit ñi waaye li am doole te nag du ma koy faral di li am euh, solo li xaw a doy waar te du ma koy faral di wax mooy yóbbu na ma ba ba nekk ouvrier liggéey naa bata mm. te mm-hmm. liggéey naa fa man sax dama koy fàtte léeg-léeg ma romb fa xool daal di mais man fii kat liggéey naa fi mm-hmm. liggéey naa tamit euh, ci ci port benn société de transit bu ñuy wax général import. nga nekkoon tamit doonoon si ndaw yi doonoon bañkat. Mhm. nekk si mouvement yi ñoo xam ne mun nañ ko wax mouvement de gauche. waaw mun nga si dellu si tuuti. waaw man nag euh, euh, mouvement de gauche li ma li ma war a jëkk wax mooy que bi ma amee fukki at ak juróom laa bind sama téere bi njëkk mu tudd la cloison. cloison xëy na boo ko doon tekki ci wolof moom mooy daal tàppaat loo xam ne dafay euh, dafay euh, séparer ñaari béréb. Mm-hmm. lu tax ma bind ko mooy bi ma nekkee lycée lycée Vanvo soo euh, moroom yi fa jaar yëpp te am na ñu bëri ba léegi ñu ngi fii maa ngi leen di gis leen dégg xam nañ ne tubaab yaa fa ëppoon. boo jëlee ña fay ña fay ñi ña fay jàng boo jëlee benn classe euh, bu fekkee ne trent ngeen juróom yi rek ñoom ñooy nekk doomu Sénégal ba léegi ñu la kii papa mooy ambassadeur u Gabon wala Cameroun nit ñu ñuul ñi daal jàngalekat yi ñoom ñoom ñëpp ay nit ñu weex la woon ba mu des euh, prof de gym bi tuddoon Mour Seck mu jigi mu doon avocat euh, moom ak euh, Sega Seck Fall nekkoon prof physique ak chimie euh, ndem si yàlla ji Sega Seck mu mujjee nekk d'ailleurs directeur de l'école normale supérieure ku aayoon nag physique chimie mënoon li muy def mm-hmm. mais ñëpp ay tubaab la woon te nag tubaab yi dañoo kii woon dañ doon euh, li ñuy wax euh, dañ doon xeetal maanaam ils étaient racistes mm-hmm. xam nga ñuy wax ay boddi konte ci biir xeet yooyu mais mën nañu wax tamit ne euh, am na daal benn espèce xeetal bu bu fa amoon mm-hmm. dañ doon jàppale bu baax a baax ñi weex ni ñoom soo juulee nañ la xaw a mm-hmm. te dinañ la won ne yow xeeb nañ la xeeb nañu li nga doon xeeb nañu sa xeet xeeb nañu sa lépp ki ci yéesoon nag ki ci yéesoon eh, moo doon suñu benn benn prof bu tudd su ma la ko waxee xam naa doo ko gëm il était raciste de waaye il s'appelait monsieur Nègre <laughs> oui Luc xam naa ne bon voilà ñi sama morom yi mu nekkoon mm. vent foofu jamono jooju. te jamono bi ngay nettali nii am nañ suñu indépendance moom nañ suñu bopp. am nañu suñu indépendance. voilà loolu nag moom moo doyoon moo doyoon waar ci ci mbir mi quoi am nañu indépendance mais lii c'est vent bu ah, xëy na aussi li ko Senghor dugge woon rek mooy d'accord euh, ñoo moom suñu bopp waaye bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu yàkkamti mën nañ ko gisee noonu mën nañ ko gisee tamit neneen mais Senghor tubaab yi la gëmoon. ku nekk nag mën koo xalaatee nu mu la neexee mais xëy na ci gis-gisam dafa ne woon rek jarul ñu yàkkamti nañ dañ def ndànk ñoo moom suñu bopp mais bu ñu dàqee tubaab yëpp indi fi ay nit ñu ñuul te ñooñu euh, maanaam mënuñu mënuñu liggéey bi xëy na dañuy euh, dañuy yàq. xëy na dañuy sacrifier ay génération de de sénégalais. dellu si man man yaakaar naa ne loolu moo doon xalaatam. Mm-hmm. waaye tamit mën nañ jàpp ne Senghor bu fekkee ne daal euh, moom am na possibilité tànn tubaab yi ñoo ko gën a loon mm-hmm. am na ñuy wax loolu bon waaw ku nekk daal ak noo noo ko gisee. Mm-hmm. boo Sénégal était effectivement indépendant. yow sax bu ñuy wax ci Senghor mën nañu wax ne da nga bokk ci ñi nga xam ne euh, da nga amoon cofeel ba léegi sax danga am cofeel loolu ci Cheikh Anta Euh, nga nekkoon RND tamit. Mhm. mën nga dellusi si rek si sa àndaax euh, waaju baax jooju góor gu mag boobu. waaw Cheikh man dinaa koy faral di di di fàttali euh, bi ma bi ma bi ma nekkee xale à la Médina rue 5 daf daan ñëw kër ga ndax ñun suñu maam Fagué Bafa mbokku. Lamine Gueye la woon donc moom elle était SFIO elle était rouge bañoon nag Senghor comme man kon man fi ma soxee ko c'est une famille historiquement hostile à Senghor mooy bii nga xam ne jamono yi nga xam ne euh, BDS SFIO ñii les verts ñii les rouges ñuy xeex di sànnante ay xeer di def lu nekk ma grand-mère nag euh, dafa nekkoon jigéen ju ju am Pastef takku am fit euh, Cheikh Anta mus na wax Euh, sama benn rakk mus na ko ne Sénégal bu amoon ñu bari ñu mel ni Fagué Bafa ba léegi dog nañu buumu njaam gi. Fagué Bafa di sa maam. mooy sama maam. donc Cheikh man bu ko njëkk a gis gone laa woon après nag ñu ñu jógee fa bon man ay affaire ñu créer suñuy petit nos petits mouvements là de gauche yooyu RND ñëw ñu waxtaan ak euh, kilifa RND ñi ko sosoon ñu waxtaan ak ñoom waxtaan wu yàgg euh, lu mat at après daal di àndandoo dugg biir euh, dugg biir RND et Cheikh nag man bi ma nekkee RND xamoon na may kan xamoon na ne man surtout faagi dafa laa et puis am na bés boo xam ne sama yaay dama jàpp ba si loxo yóbbu ma ifan ne Cheikh kii sama doom la dénk naa la ko voilà loolu tamit defe naa ne mën naa ko fee fàttali tey et may dem nag di ko di ko déglu ndax euh, xëy na sax booba temps bon ñun ñëpp ñu ngi woon ci ay marxisme léninisme kii naan man maoïste laa kii naan lii laa mais man daal euh, dama nekk ah, dama mës a nekk nit koo xam ne su ma newee ci ci dara ànd ceeg ñépp li ci des ñi nga xam ne xëy na ñi ma àndal gëmuñu ko ànduñu ci man duma ko du ko sànni damay dama ci bàyyi xel donc dama daan dem di déglu Cheikh di waxtaan ak moom di waxtaan ak moom mu may mu may mu may mu may expliquer xamoon na ne li tax ma doon ñëw di wax ak moom euh, loolu la que daal dama nekk ndaw et bëgg daal ku ma indil ay leeral ci ay yenn mbiru mbiri euh, àddina si donc euh, dem nañu ba ba euh, Cheikh mu ngi génn àddina ajjuma bésub ajjuma bés bi ko jiitu di alxames maag moom ñu ngi toog ifan di waxtaan daaw ma nag dem këram. mos naa daan dem këram bi ñu nekkee RND di fa réunion ak yooyu. Euh, mais maa ngi daan gisee IFAN parce que moom li bu doon def rek mooy IFAN bés bu yàlla sàkk à partir de midi wala une heure defe naa day ubbi bunt bi ku ñëw daal amul ay téléphoné ndax mën naa ñëw wala ku ñëw rek toog waxtaan ak moom boo pare mu gunge la après keneen mu ngoog ñu bëri nag ñoo fa daan ñëw ñu wutee mm-hmm. man daan naa fa daje ak ay ay ay ay béykat yuy jóge ci kaw gi ñëw di waxtaan ak moom daan naa fa daje ak ay euh, kii ak ay ay ay universitaires étrangers ñii di ay américains ñii di leneen moom daal amul amul amul xaj ak seen ñëw laal toog ku ku jëkk ñëw daal moom lay jëkk gis. Boubacar Boris Diop si sa mm-hmm. jaar jaar tamit mm-hmm. nga doon jàngalekat daf jàngale philosophie su nga juumul. après nga doon tamit euh, taskatu xibaar journaliste mën nga dellu si si sa expérience yooyu. waaw man euh, maa ngi jëkk jàngale euh, lettre moderne lycée Charles de Gaulle dans les années soixante-dix booba quand daanaka xale la woon na. Ah. Mhm. <laughs> oui oui j'étais très jeune. Et ensuite jàngale jàngale filo pendant quelques années euh, lycée Abdoulaye Sadji. bu Tëngéej bu bu xëy na cinq ans xëy na xëy na xëy na six ans ensuite euh, jóge fa man nag doon naa jàngale def naa doon naa ci góorgóorlu mais. daanaka nekkuloon loo xam ne xalaatoon naa ne dinaa ci dinaa ci sax dinaa ci yàgg ndax man bi ma nekkee gone laa tàmbali bind te xamoon naa ne li ma bëgg a doon man mooy bindkat mm-hmm. buggu moo nekk euh, avocat buggu nekk docteur buggu nekk daara buggu def politique li ma bëggoon mooy di bind ay téere mm. di ci wax li may xalaat euh, nit ñi di ko jàng xëy na mu amal leen njëriñ loolu moom leeroon na ma ma dem ba ci yàgg ma seetlu ne bu fekkee ne da nga bugg a nekk bindkat euh, da danga war a xam bu baax sa askan naka lay doxee lan mooy xew ci réew mi te kooku kenn gënu koo xam taskati xibaar yi journaliste yi ngay gis nii bu ñu bindee benn denc nañu juróom-ñeent ñu bindee benn denc nañu juróom-ñeent ni réew mi doxee dëggantaan man maa ngi koy door a xam bi nga xamee ne teg naa téere yi dem sesti di fa jàng journaliste ba am fa sama diplôme journaliste mu sesti mhm. daal di bàyyi completement jàngale di dugg nag ci journalisme bi waaye même bi may bi may bi may jàngale amoon na benn benn benn benn journal bu ñuy wax Afrique Tribune bu Ibrahima euh, Signaté créé woon moom tamit euh, est décédé euh, ma dem ci moom ne ko voilà man dama bëgg bind mu ngoo ne ma ay ci lan lan nga bëgg bind ma ne ko dama bëgg ñëw di wax affaire littérature ci wolof ñu koy wax ladab waaw bu téere génnee ma jël ko euh, wax lan laa ci xalaat critique littéraire euh, ndax jag na walla jagul waaye tamit bëgg naa dem di waxtaan ak ñi nga xam ne dañoo bind ba am tur ñëpp xam leen ma laaj leen seen liggéey naka la demee comme ni ñuy def nii rek maak yow booba j'avais peut-être la trentaine fanweer at laa amoon alors euh, noonu laa waxtaani ak euh, Cheikh Hamidou kan ay fan yi fan ñu génne ko ci benn numéro euh, peut-être sur cinq ou six pages mais en en en plusieurs euh, Sembène Ousmane Sembène. Mm-hmm. ma dem këram Yoff. Mm-hmm. toog moom it ñu génne ko cinq ou six ou cinq six pages deux ou trois numéros. Mm-hmm. Cheikh Aliou Ndaw ma dem këram ñu toog la même chose. trois quatre numéros cinq six sept pages. tribune Afrique gudd gudd Afrique tribune. Afrique tribune waaw. maa ngi koy seet sax. parce que am na lu ma ci bëgg a def. Euh, defe naa war na nekk archive. donc foofu laa commencé après nag ci laa door a dem CESTI may def Afrique tribune mosu moon teg tànk CESTI après ma def CESTI pare voilà euh, jaar ci yenn euh, yenn journaux yi. Pape Samba Kane créé euh, defe naa démocratie voilà benn benn mensuel waaw nga xam ne li ci ëpp solo mooy dañuy bind mais di xeltu di analyser di réfléchir et cetera euh, démocratie africaine ensuite jóge fa euh, le matin Pape jiitu ko après ma wuutu ko nekk directeur de de publication ak Lunati ah fekkoon na nag quand eh, bi ñuy créé sud maa nga fa woon. bokk nga si groupe bi maa nga fa woon ñu daal di euh, sud nag def naa fa quand même de quatre vingt six à quatre vingt seize. def naa fa mhm. fukki at. Mhm. waaw après nag la yeneen yi ñëw. li tax ma bàyyi. dama doon finalement liggéey bi man journaliste dama ko doon def pour gën a xam la société mais aussi. xam nga nag le journalisme bu fekkee ne yaa ngi koy def ni mu waree euh, mën nga cee mën nga cee jàng bind maanaam euh, bu fekkee ne romancier nga dangay bind ay ay ay ay ay téere yi nettali euh, di nga di nga éviter ay wax kasaw kasaw mm-hmm. sa xalaat di nga ko wax. ci ay baat yu gàtt te néew te day tax li ngay bind am nervosité eh, loolu defe naa ne journaliste moomu ko jàngal te sama téere bu mel ni eh, Murambi le livre des ossements li ko wutalee ak li ma bindoon avant muy le temps de Tamango di les tambours de la mémoire wala les traces de la meute wala le cavalier et son ombre moo di que bi may bind euh, Murambi fekk na euh, mën naa ne sottal na sama formation en tant que journaliste dafa ma dimbali lu bëree bëree bëree su demee Rwanda ba euh, li fa xewoon ma mën koo daanaka ma mën cee teg sama bët parce que mën nga mën nga dem Rwanda li fa xew daf lay jaaxal ba doo xam sax nu mu demee maanaam les mécanismes de l'événement li ma may ba ma mën koo ba ba ma mën cee liggéey moo di que dama jaaroon ci journaliste. ndax muraam bi bu ñu ñëwee muraam bi dañuy gis ne coppite am na si ni ngay bindee da ngay da mel nii da ngay doon takk der buy wër dëgg wala journaliste buy buy xool ay <laughs> fait def enquête mu ngi noonu par rapport à roman yu njëkk yi mel ni les tambours de noonu laa ko expliqué mhm. parce que man bi may dem euh, Rwanda di bind muraam bi le livre des ossements euh, maa nga woon matin mhm. nekk fa directeur de publication léegi nag et euh, ma war a ma war a ma war a def un choix ma war a seet léegi vraiment lan laa war a def ndax damay damay toog fii point E fa la le matin nekkoon wala damay dem parce que nag aussi ñu ngi doon woor Rwanda pour ma ñëw bind wala damay dem Rwanda ma dagg ak journal bi dem Rwanda waaye euh, bi ma nekkee Rwanda li ma doon wéttali mooy li ma jàng ci journaux yi ma jaar yëpp. di wax ak di woon am na yeneen bindkat. ak yeneen bindkat voilà di wax ak nit ñi les Tutsi wala sax les wutu parce que dem nañu aussi dem nañu ci kaso yi ci prison yi. ngay laaj di nga xam yan laaj nga war a laaj di nga xam naka nga war a déglu di nga xam liñ lay wax lan moo ci am solo ak lan moo ci ñàkk solo di nga am tamit euh, possibilité xam liñ lay wax lan moo ciy dëgg ak lan moo ci lan lan moo ciy fen te booy bind doo fa nekk di di wax jëmale bu kenn xamul da ngay maanaam sa xalima da nga yemale mu wax rek li nga xam ne bëgg nga ko wax nga yem fa te loolu day tax euh, mbind mi am am doole ni nga ko waxee nag ñun euh, bi ñuy dem Rwanda du woon du woon man kenn rek man maa fa maa fa nekkoon mën naa wax ne guleet sax ci euh, mboorum ladab fépp ci àddina si dans l'histoire universelle de la littérature guléet lu toll ni fukki bindkat jóg àndandoo daal ne béréb sàngam lu kéemaane xewoon na fi am na ñaawteefuñ fi def foog ñu dem nekk ay seede bind xamal nit ñi ne lii moo fi moo fi xewoon xam nga déjà rek kooku débat si journaliste la loolu la débat journaliste la xam man mi nekk journaliste ñu ne kaay kaay seede dafay dafay yomb ci man donc noonu lañ fa demee ñaata la ñu woon fukk la woon fukk la ñu woon euh, man ma jóge Sénégal si Lam ko jóge Tchad euh, ñi jóge Guinée ñii jóge Djibouti ñii jóge réew réew Afrique yu bëri ñu dem foofu et def nañ fa ñaari weer am na ñu dellu man si ñi si ñi dellu laa bokk ndax mbir mi leerut leerul woon baax suma bopp. man foog ma dellu am na coppite waxtaan ak nit ñi. coppite yow bu dul sax bindkat bi mais nit ki ba nga demee gis li xew Rwanda am na loo xam ne. ah oui ah Pape c'est parce que xamul daax euh, ñun bi ñu fay dem euh, quatre-vingt-dix-huit te affaire yi euh, quatre-vingt-quatorze la woon xam nga ñeenti at yoo xam ne man wax naa ko léegi nekk naa. prof de littérature nekk naa prof de philosophie nekk naa taskatu xibaar eh, di bind ay téere booba sax tàmbali woon naa am tur bi ma demee ba yëg ne réew mi ma nekk tey muy Rwanda eh, lu mët téeméeri fan ci 1994 weeru euh, avril ba weeru juillet su leen bés bu yàlla sàkk fii rey nañ fii mais fukki junni nit waaw fukki junni nit mm. bés bu yàlla sàkk amul bés boo xam ne reyuñu lu toll ci fukki yu ni nit yow nga ne fi nga jaar yëpp xaw ma communiste nga xaw ma lii nga prof de philo te yow yëgoo ci dara alors que bu accident de train bu ndaw amee Paris nga nekk fii jooy yow yaa koy jëkk yëg walla feneen ak feneen xoolal 11 septembre su ma la déggee ni mu ni mu ni mu yëngalee jamono donc loolu danga naan en réalité euh, intellectuel africain du dara man ci laa xamee ne du dara loolu nag daal di soppi ma gis-gisu àddina ndax waaw après euh, Mouran bi nga tàmbalee bind ci wolof ndax am na lu mu ci joué waaw joué na ci xam nga soo ko waxee nit ñi yenn saa yi damay nekk euh, bitim réew ñu may laaj lu tax nga jékki-jékki di bind ci wolof di joxe yu bëri dinga nga ne euh, voilà ci keppaaru Cheikh Anta Diop laa màggee dinga nga ne euh, dama dem ba sës ci kalaama Molière dama dem ba yëg ne li ma ci bugg wax mënutuma ko wax te tamit xam nga bu ñu waxantee dëgg euh, bindkat bi warul a sore. askanam aw aw aw askanam waru ko sore. te xam nga fii bu ñu waxantee dëgg ñi fi ñi fi làkk tubaab bëreetul xëy na ay at ci ginnaaw yaa xëy na ay quarante ans trente ans mais sax xëy na vingt ans ay jamono Senghor yooyu. tubaab daf fi amoon su may léegi kenn làkkatul tubaab yow ngay bind kat di bind ci euh, lakk woo xam ne benn nampoo ko ñaar déggatoo ko xam nga li nga ko nampul sax kooku euh, mën nañ koo mën nañ koo nangu nampoo ko waaye euh, daal ay nga ci xaw nga ci am compétence mm-hmm. loolu mën nañ ko warante mais boo demee bay bind ci loo xam ne doo dégg mukk mukk mukk mukk Sénégal li kan ngay dégg mooy mooy làkk tubaab boo demee bay bind boo demee bay bind dangay tëj palanteer bi dal di ne baatu wolof wala baatu joola wala baatu séréer bu fi kenn dugg xam nga loolu dafa doy waar dafa doy waar dafa doy waar euh, waaye tamit nag mooy li nga wax ko Rwanda am na ci am na ci wàll quoi. waaye dama gis. waaw am na ci wàll. yéen mhm. doomi Afrique yi mhm. bind si seen làkk yi. dangeen néew lool parce que bu may xool ki ko njëkk def Thomas Mofolo nekkoon Lesotho doon bind si làkkaam Sesotho su ma juumul. Mhm. Ngugi Wa Thiong'o tamit. ak euh, ak yow lañ ci gën a ràññee Sénégal bon am na yu Aliou Ndao am na ñoom Mame Younouss Dieng ak ñeneen da ngeen lu tax ngeen néew lu tax bëriwu leen. ah non loolu mën naa wax rek ne du jikko jamono la c'est-à-dire que foofu lañ toll. Mhm. te sax xëy na tamit euh, ñiy bind ci kii euh, ñiy bind ci kàllaamay Kocc walla ji bind bind ci pulaar ñaari. làkk yooyu bari bëri nañu dañ leen a xamul rek xamuñu leen et fulaaluñ leen xamuñu leen fulaaluñ leen dafa mel ni sax jamono yi ñu toll fii ci Sénégal ñiy bind ci euh, euh, ci ci wolof ak ak pulaar dafa mel ni ñu ngi. ñu ngi ñu ñu ngi ñu ngi euh, ëpp si ñiy bind ci euh, kàllaama tubaab. waaye tamit problème bi day des ba léegi. waaw kan moo leen di liir. ah voilà loolu moom euh, dañ koy laajte di ko laajtewaat te xam nga laaj boobu li tax mu doy waar moo di ne li mu tekki mooy. ku bind tubaab ñu jàng ko nit ñi jànguñu dara boo bindee anglais duñ ko jàng boo bindee français duñ ko jàng boo bindee wolof duñ ko jàng lenn daal laa xam ne bu fekkee ne eh, yaa ngi yaa ngi yaa ngi bind wolof eh, li nga war a eh, bàyyi xel moo di ne da ji ngir ëllëg. Mhm. xam nga kenn duma ne bindkat yi nga xam ñoom la ñu gën a ràññee ci àddina si boo jëlee réewi tubaab yi mhm. boo ma nee Shakespeare wala Molière wala Balzac wala Tolstoy mhm. wala keneen ak wala Goethe wala keneen ak keneen dañu ji ah waaw amuñu kenn kenn kenn kenn kenn kenn jàngu leen woon de mm-hmm. Baudelaire mais xiifa ko rey le grand Baudelaire nga xam ne léegi xëy na ay centaines de millions de personnes ñoo koy jàng bi muy dund mais il a vécu comme un misérable mm-hmm. boo ko gisee tamit ci peinture ay Van Gogh qui fou léegi benn tableau wan ko ñu ne la quarante milliards la lay jar soo amulee quarante milliards doo ko doo ko sax xool affaire bi moo tax bu fekkee ne nit da nga nekk ci ci mbir li ëpp solo mooy nga xam euh, ci ni àddina si doxee histoire li ngay liggéey mboorum littérature la dem loolu la wane da ngay bind bàyyi fi bu ñu demee ba ay xëy na sax ay xarnu ay siècle ay at ay ati at mu tàmbalee meññ. ñëw daal yow waaw man loolu laa gëm. mooy dañuy doon. waaw ay xàllkatu yoon. voilà dañuy xàll xam nga boo seetee. Cheikh boo bëgg lool. ma koy muy environnement lettré. environnement lettré mooy nit ñi dañoo war a tàmm seen bët di di di dajeeg loo xam ne dañ ko bind ci joolaa ci séeréer ci wolof walla ci beneen euh, làmmiñu réew mi loolu mooy environnement lettré xam nga nit ñi euh, colonisation dafa doy waar de mm. ni muy ni muy yàqee xel mm-hmm. euh, waruñu ko kii quoi waruñu koo xeeb ndaxte euh, damay seetlu sama gaay yi xam ne dañoo jàng tubaab us bu jàng nañu tubaab te dégguñu tubaab waaye moom loolu la ñu gëm mm-hmm. boo leen joxee benn texte wolof pour ñu xool ko euh, man dama koy gis ndax man bindkat laa nag damay seetlu mm-hmm. bindkat da ngay mën seetlu da seetlu ne te ñoom xam lu tax su ma ko mënee wax noonu dafay metti seen bët dafay xëtt seen xol. loolu de mun naa ko seede ndax bàmmeelu Côte d'Ivoire ba mu koy doog a jàng <laughs> waaw xaw koy hmm. da nga koy da koy gis bon mais euh, am na lu am solo ci àddina mooy li nga nekk rek nga nekk ci nga. dëgër bopp souvent man dama daan bu Cheikh ant dëgërul woon bopp man tey naka lay xalaatee keneen naka lay xalaatee mais fan réew mi tollu tey Cheikh daanaka dafa dafa sacrifié wu pour pour nun ñun dem eh non mais dañ ko daan kokkali xam nga ay moroomam yi gars yi fi nekk nii laa nii te dañ ko daan kokkali xale ki kii yaram yu neexul tubaab bi nekk fii moom mun naan ñu bind wolof te xoolal léegi affaire yi tane na xool gone yi tane na de ku ci bindul wolof tamit xam nga ne xam nga ne yaa tooñ sa bopp loolu au moins xam nga ko ku jàng ah, sax amoon na ay jamono nag bon les gens ne voulaient même pas en entendre parler. Mm-hmm. boobu nda tubaab sax yow yaa ngi xalaat kan moo lay jàng. Ah, kan ñu lay jàng nañ léew lool mu ngi noonu. Mm-hmm. voilà mm-hmm. donc léegi vraiment euh, il faut faire un pari quoi sur le, le temps xoolal xam nga Cheikh il est décédé en 86. Mmh. mais Cheikh Anta bi mu fiy jógee euh, Mame si Dieng publié woon li mu li mu génnee euh, Cheikh Ndaw. li mu li mu li mu téere yi mu mool la ñu koy jàng mm-hmm. nga xam ne xëy na euh, cheikh ci wolof bind lu tol ci euh, fukki téere ak juróom mm. su ma juumulee muy nag euh, muy clip maanaam théâtre di maye maanaam nouvelle di téere bu nettali roman di di taalif yooyu yëpp génne na ko génne sax téere bu xeltu gën mooy. mooy essai. essai mu ngoog euh, yooyu yëpp Cheikh fekkewu ko téere Aram Fall yi ñuy Jean Léopold man yi ma bind bi Cheikh dem amul mm-hmm. mbir mi kañ la kañ la tàmbali ak fan la jógee cinquante quatre Cheikh génne. nation nègre et culture présence africaine ca Paris am ay euh, euh, am ay doomi réew mi nekk étudiant foofu Cheikh Ndaw mi sax ci la bokkoon moom moo doon seen caat muy Cheikh Ndaw di Saliou Kanji di Assane Silla di Massamba Saare di Assane Dia ak ñeneen ak ñeneen jàng euh, téere boobu daal téere bii daal niñ ko gisee euh, am na lu ñu war a def Cheikh bind na ko war nañ koo jëfee ils a à Grenoble benn dugg dugal bi ñu wax Grenoble di daje kër Assane Sylla créé fa li ñu tuddee le groupe de Grenoble daal di def le premier alphabet abajada bi njëkk ci euh, làmmiñu wolof tuddee ko c'était en cinquante huit Ijib wolof Ijib wolof en fait et ñu jógee fa euh, comme loolu cinquante huit la yàggul dara indépendance ñëw Cheikh dellu si di def li muy def fii di xeex euh, Senghor di ko di ko sonal waaye li mu nekk mu nekk ci eh, nga dégg ne eh, Saxiir Caam am na lu muy lu muy def ci mathématique ak wolof Pathé Diagne am na lu muy liggéey Pathé Diagne man mii sama prof de wolof la woon à l'université Cheikh Anta Diop man moom moo ma jàngal wolof ak ñeneen ak ñeneen mm-hmm. eh, daal voilà et ñu jóge fa ñu jóge ci ñooñu mu am ay ñoom Aran Fall Cheikh Ndaw mm-hmm. xam nga Cheikh moom mu ngi fi depuis le début moo tax mu nekk nit ku am solo Cheikh Aliou Ndao man Cheikh Ndao mooy sama kilifa moo tax ku ma tudd te tuddoo ko pour man juum nga moom mooy sama kilifa ndax daf ci yàgg et te dafa mën a bind. Hmm. Boubacar Boris Diop ñu ñëwaat ci sa œuvre. man su may jàng say téere di gis say personnage damay am jafe-jafe des fois dafay mel nii li ñuy wax ci tubaab rythme bi doo topp rythme bu normal su may jàng su ma gisee Baye njiraan wala ma gis Khadija wala ma gis euh, Kiné Gaajo mi mujjee damay damay damay réer su may jàng say téere damay réer lan moo tax sa bind jafe mm-hmm. du nag loo xam ne xëy na nit ñi am na ñu mën a yaakaar ne man maa koy tey ne fekk jafewul rek jagul du loolu dafa fekk rek ne da màgg di jàng ay bindkat yu mel ni Stendhal yu mel ni Balzac ak yooyu ñu mel ni Mongo Betty mhm. ñu mel ni. Euh, Sembène Ousmane ak kanet yi Olympe Bellikéroum ma nekkee xale daan naa ko jàng lu bëri. auteur bi ni xamoo kenn xamu ko Olympe Bellikéroum mm. waaw benn roman un piège sans fin Seydou Badiane Kouyaté bu Mali. Mm-hmm. leen jàng mu am nu ñuy bindee maanaam da xëy euh, di nettali ba timis jot. say way jëmmal dem reer yi dem tëdd nelaw bu ëllëgee ñu yeewu ngay wéyal li ngay nettali mën nañ ko tuddee ci tubaab benn récit linéaire xam nga boo nekkee xale di di di di gis lenn eh, doo bëgg doo ko bëgg toppandoo da bëgg da bëgg indi loo xam ne yow yaa ko yow yaa yow yaa ko sàkkal sa bopp quoi da ngay indi lu bees dangay ngay da ngay waane da ngay bëgg jommal nit ñi da ngay jaaxal nit ñi. Mm-hmm. fekk nag man euh, bi ma jógee ci ñoom ay Balzac ak yooyu euh, ki ma gën a ki ma gën a jàng mooy euh, Jean-Paul Sartre. Mm-hmm. te mu jafe lool moom tamit. mu mm. jafe mm. roman boobu mooy wax mm. les chemins de la liberté euh, critiques yi ñu ngi ko ranger parmi les récits on va dire unanimistes baat boobu lañu ñu pour daal euh, wax naka la ñu gisee euh, les chemins de la liberté maanaam. ay nit ñu bëri ñooy waxandoo ci biir téere bi ma jóge fa di jàng loolu nag lu am solo la euh, bindkat yi nga xam ne euh, ñu ngi fekk baax Amérique latine. Mm-hmm. ndax bu ma lay. lii tamit dinaa gis tamit tuuti euh, Garcia Marquez. Garcia Marquez. Mm-hmm. te nag Garcia Marquez bu ñu waxantee dëgg. benn benn téeréem rek laa xam ne euh, daal bëgg naa ko lépp lu ma liir ci moom bu bu dul cent de solitude yëngalu ma euh, ki nga xam ne wax dëgg yàlla moom mooy euh, auteur Amérique latine bi nga xam ne marqué na ma dëggantaan kook tamit xëy ñi ko xam bëriwul mu ngi. tuddoon euh, Ernesto Sabato mm-hmm. Alejandra l'ange des ténèbres le tunnel ñetti téere yooyu la bind ak tamit benn benn téere bu ndaw ba muy laata gaañu euh, muy euh, muy nettali jaar-jaaram def naa ni mu ngi tudd avant la fin mm-hmm. mooy avant la mort am na tamit benn benn benn benn bindkat bu tudd euh, bu bind euh, téere bu ñuy wax Pedro Paramo Pedro Paramo maa ngi fàtte maa ngi maa ngi fàtte turam te monte day ku am euh, ku am solo la ñoom Marquez ak ñoom Sabato ñoom Cortázar ñoom ñëpp ci moom la jaar mm-hmm. voilà Boubacar Bory Diop lan nga yaakaar ne warul mën ñàkk si littérature wala roman sax laay wax si roman africain maanaam li tubaab di wax esthétique euh, esthétique en littérature lan loo xam ne doomu Afrique war na di bind te war na ko si boole lan nga yaakaar ne mënul ñàkk si bindkat. na ku nekk bind lu ko neex. Mhm. parce que bu fekkee ne li nga bind euh, da nga ko bind. ndax rek danga ne lii sama sama wareef la lii war naa koo def mhm. demal nga xeex pour politiquement. waaye yow da nga doon da nga doon bindkat bu engagé tamit. voilà hmm. gis nga nag euh, am na ñoo xam ne dañuy bind li ñu mën a tuddee ay roman slogan mhm. di bind pour fexe ba et li nga xam ne mooy seeni xalaat mhm. ñu dugal ko ci te pour man loolu kiiwul. Euh, loolu loolu loolu du yoon. li ma gëm mooy bindkat bi na en tant que bindkat na bind lu ko neex na nu mu ko neexee ah xëy na gaa di bind par exemple boo nekkee doomu Afrique du Sud nekk nit ku ñuul naan ah. doo wax ci eh, apartheid. apartheid de wax dëgg yàlla waaw mbaa sax nga ne apartheid dara aayu ci. wala yu mm-hmm. demee noonu. Mm-hmm. xëy na loolu dina dina dina dina jafe nangu waaye ba tey sama yoon nekku ci. Mm-hmm. man nag li ma bëgg mooy. nga bind ba pare nga xam ne bindkat bi ak citoyen bi ak doomi réew bi ñaar lañu xam nga loolu moo tax ku mel ni man. di bind samay téere ba noppi teg leen fa ah di bind ay kii ay article ci Séné Plus mm-hmm. di wax la laa xalaat ci nit nga xam ne noonu la réew mi noonu noonu la réew mi doxe loolu nag xam nga bon nga bind nit ñi jàng ko xaw la cee naw euh, nga am ci tur loolu xéewal la rek mm-hmm. bu fekkee ne vraiment mën nga cee mën nga cee sukkandiku comme léegi bind nga ay téere ay téere nettali ba am baat soo waxee ñu lay déglu xëy da da ci war a profiter di waxtaan ak nit ñi ci ni Ablaye Wade tey réew mi tey woon réew mi ni Macky Sall tey réew mi mm-hmm. li nga xam ne eh, moom moo fi am te mm-hmm. yaakaar nga ne. jaaduwul loolu nag. kooku am tamit loolee ni jàngal ndax bu may bu may bu may bu may jàngee bàmmeelu ko ci baax ma mhm. si laa xamee kan mooy Sidiya Léon Diop. Sidiya Léon Diop ndax bu ma la bu ma ko liirul woon. du ma xam ko dina ma réer. loolu yëpp mu ngi si mhm. xam nga nag boo nee euh, xam nga nit ki tamit boo nee euh, waaw euh, bindkat baa ngi nii xeltukat baa ngi nii taskatu xibaar bi citoyen bi. léegi danga leen da leen di xar ñaar xam nga loolu doomu aadama. soo xaree ñaar lan ngay am. boo xaree ñaar. zéro ngay am mm. doo amati doo fekk mu ngi noonu mm-hmm. donc nit ki même bu fekkee ne ñu ngi naan dañuy xar ñaar munoo munoo dëggantaan munoo munoo texale. Mm-hmm. donc moo tax boo demee boo boo boo boo liiree nu mu tuddati bàmmeelu Kocc Barma mm. di di nga fa fekk yenn yi. Mm-hmm. yi nga xam ne man euh, moom lay moom moom laay xalaat mhm. su may su may wax mhm. ci euh, ni ci ni réew bi doxee mhm. euh, boo demee ci sama téere di ko fa fekk maa ngi bind beneen beneen beneen beneen beneen téere tamit naka noonu li nga xam ne moom lay noonu laay gisee bi yoon nag du sax réew mi ndaxte li may bind ci Nigéria lay xewe xam nga nekk naa Nigéria lu mat ñeenti at mm-hmm. di fa di fa jàngale mm-hmm. fàttoon naa loolu sax mm-hmm. jàngale naa fa ci benn université américaine lu mat lu mat eh, jóge fa di bind téere ci ci Nigéria foofu nag xam naa ne liy feeñ mooy euh, la dimension panafricaine waaw sénégalais laa bind naa ci Rwanda ba pare te maa ngi bind ci ci ci euh, Nigéria yooyu yëpp nag voilà dafay feeñ. waaye ne nit ki ah su ban dina am nit ñoo xam ne dañuy bind et li nga xam ne moom moo nekk seen ci seen biir téere dinaa ci ànd waaye seen téere baaxul dina am tamit ñoo xam ne li ñuy wax àndoo ci àndoo ci. te mën naa ci joxe firnde àndoo ci waaye dinga ne kii mën na kii bindkat dëgg la mooy kan mooy euh, le le sud africain blanc euh, Coetzee mm-hmm. John Coetzee ci bindkat yi ma gën a naw la waaye yi muy wax man bugguma ko kii ay téeréem mm-hmm. ay téeréem lu am solo la ci man ndax man bindkat laa te su ma gisee koo xam ne eh, li may def mu koy def moom mën na ko dama koy sumil chapeau. mais nag du tax nit ki eh, nit ki disons bu saf ma mu sëñ ma invité benn colloque Australie boo xam ne parce que moom Australie la dëkk léegi kët see boo xam ne eh, yëpp. ay bindam lañ ko jagleel man dama dama tàmm di wax affaire kët si ba nga xam ne xam naa ne ñi organiser colloque bi gis ko ne dañ may invité mais dama bañ. waaw mm-hmm. dama bañ. Mm-hmm. xam naa ne xam naa xam naa ne ponkal la mais bugg koo jox. àndoox li muy wax. àndoox li muy wax dëgg la Boubacar sooy bind danga aw yoon da nga am yoon booy aw ngir tabax say personnage wala di leen jox jëmma wala di togg say say say say say roman. waaw am na nag ku nekk ak ni ngay ni ngay ni ngay ni ngay bindee man euh, su ma xasee ba tàmbali benn téere damay bind rek di dem maanaam euh, bu dee téere bi bu génnee ñaari téeméeri xët la deux cents pages mën na am bind naa lu toll ci ñaari junni yi xët damay bind rek di dem di bind di dem mooy euh, way jëmal yi ku ci nekk mën nga am ñaar ñett ba ñeenti tur su ma fa jógee ma tànn ci benn béréb yi mën na nekk euh, yenn saa yi ma ne Ndakaaru la Medina yenn saa yi ma ne Ndar la walla ma ne béréb bi nii la tudd ma demee ba ci biir dinaa dinaa seet ban laa ciy taamu même sax li nga xam ne moom lay nettali dina dem ba jaxasoo sama biir xel mais yëpp dama koy dama koy sotti ci biir te loolu su ma ko defee ba pare dinaa toog euh, at walla at a genn wàll ba tax ñaari at yoo xam ne li mu bindoon dama koy fàtte dama koy bàyyi mu dal su ma fa jógee nag daal di ko jëlaat jëlaat daal di ne way jëmmal bi nii lay tudd yu bëri nettali naa ko ci biir téere bi waaye wax dëgg yàlla bi ci ëpp solo bii la yi def yëpp dama leen di sànni bokkatuñu béréb bi nga xam ne parce que lu am solo la fi la euh, mbir mi xewe nii laa koy tuddee dama koy tuddee ñaarela mbaa mu tuddee ko Médina mbaa mu tuddee ko Dunia mbaa mu tuddee ko neneen loolu xam nga boo ko seetloo dafay xaw a niroog gis nga euh, lawbe bi mu jël euh, bant maanaam garab gu daanu di ko yat ndànk-ndànk su koy yat bu ci jógee dina defar ñey mbaa mu defar kër mbaa mu defar xar kanamu nit gis nga nag liggéey boobu nga xam ne da ngay yat ndànk-ndànk man ci sama gis-gis su ma tàmbalee def loolu lay tàmbali bind waaye lu njëkk li moom lu ñëw rek ma boole dugal ci waaye xam nga nag euh, bindkat dafa xaw a nekk euh, toujours day xaw a nekk toujours ni ko xaw a doy waar bi yoon bi ma demee bay bind téere bii nga xam ne maa ngi ko jagleel euh, Nigéria dama ne damay soppi ni may doxal damay bind benn chapitre ba mu jeex bi ci topp bi ci topp bi ci toppaat daanaka soppi naa ni may bindee ko waral wala neex rek. Euh, noonu laa ko yëgee du daara noonu laa ko yëgee waaw xam nga nag aussi li ñu wax ci artistes yi artiste daal xëy na boo mënee tënk mbir mi mooy rek mag mu réew ko li nga xam ne moom moom moo ko neex loolu la xam du fa nekk sax naan lii moo tax ma def lii walla lee moo tax ma def leneen noonu daal laa ko yëgee téere bii moom amagul tur nag loolu aussi lu raar la généralement balaa may bind damay xam téere bi may bind naka lay tudd mais bii maa ngi koy bind mais ba léegi am amagul tur mm-hmm. euh, bu Boubacar Boris Diop bu fekkee da nga doon xelal ndaw yi bëgg a bind lan lay doon loo leen di wax maanaam yóbbal bi ñu leen di bàyyi. waaw benn bi mooy man euh, xam nga li am solo ci waxtaan wi mooy euh, xam nga sooy bind da ngay da ngay du am ko waxtaanal xëy na sa soxna sax. li ngay bind mun nga ci waxtaan ak moom mais du xam lan la du ci sa xarit du ci bu waxtaan ak kenn eh, te boo demee nag ba am yenn jaar-jaar yi et eh, na nga sedd ci ñi nga xam ne ñoom ñoo la ñoom ñoo la féete ndaw moo tax suñu waxtaanu tey bi eh, amal ma solo man mii mooy lan man bi ma amee fukki at ak juróom laa tàmbalee bind ci français la cloison ay affaires yooyu jóge fa le temps de Tamango ayu kenn xamul mais bi nga xamee dem naa bay bind wolof laa xam ne non juum naa dama waroon a jëkki la làkk bi nga xam ne moom laa daam ndax li may yëg su may bind wolof mënuma ko yëg su may bind tubaab te yàlla xam ne man jàng naa tubaab Euh, li nga xam ne mën naa ko ak nit ñi ci wolof mënuma leen ko wax ci tubaab ba ñu dégg ko kooku mooy benn su amee ne vraiment am naa yóbbal bu njëkk bi mooy wax dëgg yàlla fulaal làmmiñ réew mi te booy bind nga bind ci li nga nàmp ndax tubaab ak ñun sax de toute façon léegi mu jeex est su mariage d'intérêt woon c'était pas un mariage d'amour le divorce mu ngi ñëw kooku benn la beneen bi mooy ngay bind wolof mbaa pulaar mbaa joolaa mbaa ngay bind ci français man damay faral di wax ne mën bind amul xëy na am na daal am na ñoo xam ne yàlla may na leen mais euh, bariwuñu te xëy na loolu taxu ko am solo ci ci bind xam nga moo am solo ci bind mandute mandute mooy lépp lu bind nga jàngaat ko ñaari yoon ñetti yoon fukki yoon balaa ngay dem ba ne li mu bind xaw naa jag war naa ko wan nit ñi liir ko quarante fois euh, loolu moo wutale ñuy bind am na yoo xam ne dañuy ñëw rek bitari machin daal di ne boo man mbaa tégal bu kii bi quoi hmm. daal di joxe alors que xëy na buñ ko surtout nag bu ñuy bind français gën a tax may wax làkk koo xam ne nàmpoo ko dafa jafe hmm. moo tax ñi fi bind euh, français mu jag léegi bëreetul hmm. pour man mën bind amul nit ki mandu mbaa mu bañ a mandu loolu am solo loolu laa doon wax bi ma nekkee Nigéria ñi ma doon jàngal parce que loolu laa fa daan jàngale tamit li ñu tuddee ci anglais creative writing c'est-à-dire da di jàngal naka la ñuy bindee ñu naka la ñuy bindee voilà euh, short story nouvelle naka lañuy bindee roman ay affaires yooyu damay ko daa wax ñuy reetaan may ne su ngeen bindee ba pare liir leen ko 43 fois door ko joxe ñu mu lu tax lu tax 43 fois mais leen dafa bëri rek 43 dafa bëri su ma nee wax 44 ma wax 42 43 <laughs> dafa bëri loolu li mu tekki rek mooy vraiment di lire di lire di liir di xoolaat di xool ak xoolaat gis ko loolu ku ko deful mënoo nekk bindkat boobu boo xam ne dina euh, dina am tur daal dina am ndam ci li muy def beneen bi mooy euh, wax dëgg yàlla bu fekkee ne da nga bëgg nekk euh, cinéaste del euh, del seetaan ay film bu fekkee ne da nga bëgg nekk romancier nettalikat del jàng ay roman del jàng ay roman loolu bu fekkee ne defoo ko doo dem fenn bu fekkee ne defoo ko lan moo tax Ousmane Sembène mi nga xam ne daanaka xëy na amul sax certificat d'étude mu nekk notre plus grand romancier. Mm-hmm. lu tax mais li am rek mooy Ousmane Sembène at yi mu nekk Marseille yëpp tout sa vie mm-hmm. dafa nekk di jàng ay téere mm-hmm. mu ngi koy mu ngi koy mu ngi koy nettali. loolu am na bindkat bu mag sax. waaw soxeewoo gi fi mu ngi soxoo Amérique Jack London. Jack London. mi ngi koy wax. Oh, boo mm. bokkoon na ci yi nga xam ne voilà. Jack London. Mm. defe naa ne rôle bi nga xam ne joué na ko ci formation euh, Sembène Ousmane war nañ ko gën a gën a jàngat ndax dafa nekk lu lu lu am solo mais nag euh, di jàng ay téere am na solo mm-hmm. mais xam nga munoo nekk artiste bu fekkee ne amoo fulla bu fekkee ne euh, amoo caractère dangay xam yan téere ñoo la neex ak yan téere ñoo la neexul yow xam nga nit ñi dañoo nekk ay xeetu ma riirandoo ko dañuy gis benn téere rek ñépp ne wu téere bii moom wax dëgg yàlla gongo ñu liir ko neexu leen mais duñ ko sa duñ ko sañ xalaat duñ ko saña wax pour man nag nekk nit ko am caractère mooy bu àddina si yëpp ne téere bii moom la yow nga jàng ko neexu la xamal ne neexu la sànni ko sànni ko bul ko ubbeeti normalement téere boo jegee boo jàngee fukki xët li nga xam ndax waa ji yow lay waxal wala wala waxul yow ndax yaa tax mu bind ko wala keneen a tax mu bind ko bu fekkee ne taxaw mu bind ko te mu wóor la sonal sa bopp waaye bu fekkee ne jàng nga téere mu neex la fii tamit liir ko 43 fois xamul tax ma wax loolu parce que man euh, loolu. bi ma nekkee xale dama ko daan def te teyuma ko woon xaw ma koy def damay nekk ci parce que kër ga nag dafa amoon kàggu quoi bu mag dama fay nekk man kenn rek gars yi ñoom ñu ngi ñu ngi ci leneen euh, bu fekkee ne am na téere boo xam ne jàng naa ko je me rappelle le livre de la jungle bu kii euh, Kipling wala euh, Les Misérables Victor Hugo damay topp di ko jàng di ko jàngaat di ree di jooy di am yu ma yëg ko di ko jàng di ko jàngaat xam lu tax mu am solo d'abord loolu mën na remplacer téeméeri prof de francais man daaw ma déglu samay prof de français de non non non j'avais pas besoin parce que kër ga dama daan dama daan jàng quoi li ñuy wax soxlawu ma ko woon ay grammaire soxlawu ma ko woon dama daan jàng rek quoi ak a jàngaat kooku day tax et bu dee ay téere yu bind ci tubaab day tax nga dégg tubaab ñaareel bi mooy xam nga téere bi boo koy jàng la première fois yaa ñëpp ci yem xamoo waa ji fan la jëm donc léegi li tax koy jàng bu njëkk bi mooy da ngay jéem a xam lan moo nekk ci biir waaye à partir de la deuxième fois fekki nga bindkat bi ndax xam nga fan la jëm léegi li nga xam ne moom moo lay soxal mooy naka la koy naka la fay jëme quoi wan yoon lay xàll pour àgg fi mu jëm ndax léegi xam nga toute l'histoire l'intrigue kii mooy dee à la fin kii mooy gagné kii mooy perte ak xam nga lépp quoi léegi li lay amoon solo moom mooy loolu yooyu daal vraiment mën naa ko mën naa ko euh, digal nit ki ah xanaa bi ci gone yi xanaa rek bi ci mujjee rek mooy bañ a ba bañ a bañ a bëri tiitar si ne day gis nag ku bind benn téere daal di fii la fii la àddina yem kooku euh, pour man njuumte la daal njuumte la li ngay bind wax dëgg yàlla euh, def si sa kéem kàttan jëmbat ci fulla boo génnee ñëpp ne lii du dara fekkee la yow gëm nga dee li nga li nga bind baax na bu leen faale continuer bindal leneen mais xam nga léegi sax kenn du bind bañ ne baaxul ku bind ñëpp ne voilà mu ngoog donc euh, je crois que daal vraiment nit ki euh, fekkee da ngay bind rek pour tiitaru bu yeboo nga bañ a bind quoi. dëgg la te tamit booy bind da nga ëllëg. Mhm. mën nga bind tey kenn du xam lan ngay wax. Mhm. waaye ñu dem ba ay jamono mm-hmm. yow rek yaa fi nekk. dëgg la Boubacar Boris xam naa dañuy fii lañuy ñuy fii la tëjee. Mm-hmm. ñuy ñëw waxtaan si Afrique ndax yow bind nga ay téere saytu yoo xam ne yaa ngi ci xalaat doxalin ak nekkinu askanu Afrique mun naa wax yow nan nga gisee suñu réew yi ni ñuy doxee. waaw xam nga. Euh, boo demee léeg léeg da ngay dem ba ne ba ne ba ne ba ne ba ne Afrique dafa nekk benn béréb boo xam ne euh, daal dafa beddeeku daanaka bokkul sax ci àddina si que africains yi ci seen bopp dañoo xaw a doyati loolu nag euh, pour man njuumte la xam lu ñun dafa am fu ñu jaar mm-hmm. te daf ñu topp ba léegi mm-hmm. jaar nañu jaay nañu doole xeetu jaa jaay doole boo boo boo mën a xalaat jaay nañ ñu ko mooy euh, esclavage bi ñu daan takk nit ñi leen yóbbu Amérique ak feneen ñu nekk jaam colonisation mm-hmm. bi tubaab bi ñëwee sanc fi ay ñoom Faidherbe ba ñoom seen te loolu ci lan la lalu mooy yéen nit ñu ñuul ñi euh, daal leen wutaleeg mala bëriwul boo waxee ñu ne la mënoo bind boo waxee ñu ne la ah yow de ay xërëm rekk nga am ay xërëm boo waxee ñu ne la waaw euh, Afrique daal seen aada yi. xërëm xërëm xërëm xërëm gëm-gëm la rek. waaw bu ñu neexee sax ñu yor suñu. voilà mais nag dañ lay dañ lay dañ lay dañ lay gëmloo ne loolu euh, du yoon nit ñi dem nag ba gëm ko ba nangu ko te loolu boo gisee ma koy fàttali c'est rek bu nit ñi di juger la politique au Sénégal euh, ou en Afrique dafay feeñ. yaa ngi ne ah ñu nuulee ñun daal africain yi ñoo mel nii dañuy bàyyi euh, li nga xam ne ay ay ay ay jëf la di ŋaaj nit ñi mu mel ni am na noo xam ne soo ko soo soo ko doxalee rek dafa fekk nga nekk euh, africain xam nga jamono yi Ibrahim naka Boubacar Keita moom moo moom moo moo xew def na ay yu Keita mais booy booy lii la ñuy bind ci internet bi ah, waaw noonu la moom day africain la donc léegi li nga xam ne moom moo am mooy euh, ñu xam ne euh, li am solo ci Afrique mooy réew yi nga xam ne ñoom moom seen bopp gëm seen bopp ak réew yi nga xam ne moomuñu seen bopp gëmuñu seen bopp te man damay faral di wax ne euh, ci biir Afrique ak euh, jafe-jafe yu ñu am yëpp euh, partie Afrique bi ëpp ay problème bi gën a tardé mooy Afrique francophone lu tax mbirum français fa yow amoo sax weccit amoo monnaie mbirum euh, euh, francophonie boo buggee làkk sa làkk ñu ne la déedéet du ci dal ak leneen ak leneen euh, Afrique fu mu ne sonn na waaye xaw na nañoo tanente te parti Afrique bi nga xam ne moom moo yées tey mooy Afrique francophone ñoo ngi koy gis bu baax a baax a baax ci li nga xam ne euh, Macron nga xam ne gone gu ndaw la tubaab yi. Euh, ni ñu fi amee doole. Boubacar Boris Diop euh, yow gëmoo ne tamit suñu réew yi njiit yi ak bopp yi dañu feebar. booy hmm. gis benn bindkat malien dem si yàlla si Yambo wala gem mi ngi koy wax mu ngi naan loolu yàgg na fi yàgg nañ fi nekk suñu suñu njiit yi. tamit di di di di ñu duñ duñu faagaagal te loolu war war nañ ko saytu man su sama yaakaar yow loo hmm. gisee loolu. waaw euh, xëy na loolu am na mais bu fekkee ne tamit euh, suñu njiit yi danoo feebar euh, feebar boobu bokkul ak ci sama gis-gis de feebar bi yàmbuwul gem di wax dinaa ci dellusi mais li mu bëgg. Euh, wax fii mooy damay toog télé di gis ay euh, ay ay boroom xam-xam ay ponkal nag ay gone la ñuy faral di nekk sax ñoo xam ne man mii de wax dëgg yàlla wég na wég naa leen lool duñu ay caaxaankat li wax gëm nañ ko te tamit euh, daal ni ñuy jàngatee mbir yi ci politique ak nekkinu askan wi. rafetlu naa ko man mit naa ci jàng lu bari bu mu tudd ak tur waaye ñooñu lay toog nga xam ne man dama leen a naw dégg ñu naan ah waaye nañu bàyyi tubaab yi waay tubaab yi daal vraiment euh, nekk fii sax naan euh, seen seen seen bopp lañ nekkal Sénégal euh, yàq sa wax la te foofu nag dañuy citer général de Gaulle ne le général de Gaulle nee na la France n'a pas d'amis la France n'a que des intérêts loolu yëpp mënees na ko dégg xëy na am na waaye man ni ma gisee mbir mi booy bu fekkee ne yaa ngi eh, yaa ngi ne eh, damay waaw damay eh, damay ŋaañ Abdoulaye Wade Idrissa Seck Senghor Abdou Diouf ah sëriñ si nga xam ne ñu ci bëri wax dëgg yàlla ni ñuy doxale du noonu ñu ci bëri dañu yàq nga ne léegi foofu laay foofu foofu laay yem daal alors que boo jëlee suñu politiciens yi mais dafa ab ku leen fi teg xam nga boo nee France intérim la fi nekkal loolu mooy am nañu fi nekkal France kon léegi bu fekkee ne yaa ngi xeex ñoom ñaar ngay boolee xeex bu fekkee ne danga xeex tubaab yi rek bàyyi ñi ko fi nekkal yaa ngi soox benn tànk ngay doxe bu fekkee ne da ngay xeex ay ay Macky Sall ak ñeneen ñoo xam ne ñoom ñoo fi nekkal tubaab yi daal di bàyyi tubaab yi yaa ngi soox ba tey benn tànk ngay doxe loolu ci man dafa nekk loo xam ne dafa leer ba ñu toog sax di ko di ci di ci werante daf may daf may xaw a daf may daf may xaw a jaaxal dama naan mais ñii lan moo leen jot ndax xam nga euh, am na ñoo xam ne. jéem nañoo génn ci franc CFA ñu rey leen am na ñu ko jéem dañ leen a rey Sylvanus Olympio Kadhafi mi bëggoon a créer monnaie monnaie monnaie bu bees am na ñoo xam ne eh, dañ ne du ñu am indépendance boo xam ne vraiment moom sa réew te ba noppi gaa yi nekk Paris di dogal dañ leen a rey xam ne ki dal daf lay jaay doole am ñu mu indi teg fi ñooñu di dox ci waawam moo tax ma li ma seetlu Sénégal mooy ñëpp dañu wax ay mbiru politique politicien laa wax de ak sax ay intellectuel lu bari mais ñeme wuñoo tudd France te nag léegi loolu la ñuy bubboo parce que nag France wax dëgg yàlla dañoo am doole fii de gaa yu bëri yi fii am tur wala am yenn ndomboy tànk yi wala leneen ak leneen ñoom ñoo leen di jàppale bu fekkee ni bindkat nga. fekkee ne bëgg nga am yenn yenn yenn yenn raaya yi bu leen sonal gaa boo leen taggulee tamit cëppee leen may leen jàmm tubaab yi am fi taxawaay bu yàgg lool tey tamit gis nañ turki yeex chinois yeex indien yi noo gisee loolu voilà li daay dégg nit ñi ah oui mais dañ ki nekk fii di wax tubaab yi alors que indien yaa ngi fii chinois yaa ngi fii Turquie ak dëgg la waaye eh, am na ñaari mbir yoo xam ne war nañ ko war nañ ko sóoraale bi ci njëkk mooy tubaab yi fi ñu jaar ak ñoom jaaruñu fa ak kenn ci àddina xam nga ay kii ay eh, eh, ay chinois ay turc ak yooyu ñooñu daanaka ñu ngi door a egsi ay wàcc bees lañu xëy na am na noo xam ne buñ ko doxalee ak ñoom mën nañ cee génn ñun li ñu soxla ci ñoom ñu am ko ñoom it li ñuy wut Sénégal ñu am ko mu nekk rek daal diggante réew ak réew waaye France yow sa monnaie sa weccit ñoom ñoo ko moom indi nañ fi ay base militaire seen service de renseignement yi xëy na li ñuy wax nii maak yow ñu ngi koy déglu kenn mu mucc ci ñoom ñu ñu am doole teg fi ay njiit ci wàllu politique ñoom ñoo fi teg Macky luñ ko laaj mu jox muy terre bi lu totaal soxla mu jox lu Eiffage soxla mu jox ak leneen ak leneen kooku kenn mënu ko méngale ak ñi nga xam ne dañuy wut rek lu ñuy am loolu dara dara ayu ci xëy na rek dañu nañu def ndànk waaye munuñu leen a méngale. xam naa foofu la ñuy tëjee. nan la mhm. pour si loolu. nekk dëgg-dëgg ci yoonu yokkute. ah kooku nag wax dëgg yàlla mu ngi ci nit ñi rek mu ngi ci nit ñi nit ñi daal nañu gëm seen bopp man boo gisee may liggéey nii ci wolof di bind ay téere nettali ci wolof créer euh, benn maag sama soxna une maison d'édition en wolof. EJO EJO. waaw euh, créer li nga xam ne guleet ci Sénégal mu am fii. le premier site d'information en ligne en langue wolof lu def waxu boo gisee ñuy def loolu yëpp liggéey boobu yëpp euh, te tamit ku bind téere wolof buñ ko gisee yaakaar ne wax dëgg yàlla euh, mën nañ ko génne ñu génne ko fu ne ñu ngi waaj a génnee doo juróomi téere fii ak octobre loolu yëpp bu ñu koy def xam nga mooy euh, Euh, dañu dañu dañu yaakaar ni nit ñi euh, li leen nataxal mooy dañu gëmul seen bopp te bu fekkee nag da gëm sa bopp da gëm sa làmmiñ gëm say aada gëm li nga nekk mais du la tere du du la tere nekk koo xam ne euh, dafay ànd ak jamono xam nga li yi kenn gënu leen gëm seeni seeni aada waaye kenn gënu leen ànd ak jamono chinois yi naka noonu mais ñun dañu yaakaar ne bu fekkee ne bëgg nga ànd ak jamono et li nga xam ne moom la fi say maam bàyyil danga ko war a sànni di def ni tubaab yi mbaa di def ni arab yi donc ñun dañu yaakaar ne wax dëgg yàlla li am solo mooy euh, réew mi réew mi ñu foxati ko ci euh, doxandéem mi nga xam ne ñoom ñoo fi aki moo lépp moom ñu tuddee ko souveraineté politique waaye loolu li nga balaa nga ciy egg foog wax dëgg yàlla nga xam yaay kan nga wekk sa bopp ba kenn du jógee si àll bi rek ñëw ñëw nax la ñun boo gisee ñu yomb a nax nii c'est que rek dañoo gëmul suñu bopp loolu rek la donc pour man wax sax ay waxi koom-koom ak yeneen ak yeneen xëy na am na solo waaye suñuy mbiru mbiri koom-koom duñ ko euh, duñ ko réglé mukk du demee li nga xam ne noonu lañ ko bëggee fekk lépp loo xam ne mu ngi wéeru ci mbatiit maanaam culture ci wàllu xam sa bopp gëm sa bopp bañ sax nekk naan da ngay weranteeg ab ndoxadeem ndax da nga war sa war a gëm sa bopp am déet xam nga gisu affaire affaire Faidherbe bi gàcce la lu ëpp xarnu euh, genn wàllu xarnu juróom juróom benn fukki at nga ne yaa moom sa bopp ba léegi ay lan nekk fii ay euh, ay Rue Béranger Féraud Albert Sarraut la la la Place Faidherbe ay yu kenn xamul ngeen nekk ci nekk ci nekk ci bon en fait kooku dañ ko war a loolu daal lañu war a régler ban daal fu mu ne daal vraiment vraiment euh, li ëpp solo ci ci xeex bi fu mu ne ci culture bi la nekk quoi. Boucar Boris Diop ñu ngi lay gërëm ci sa teewaay euh, ak kàddu yu rafet. yi nga bàyyi askan wi bàyyi ka yi ñun tamit am nañ yóbbal ñoo la baaxee téere bi nga xam ne Demba Moussa Dembélé moo ko bind ah kii nag moom sama xarit la sama doomu ndey la sama lépp la c'est véritable combattant musa euh, Dem on l'appelle Dembus hein voilà mu ngoog euh, bi ma koy xam ñu nga woon université Dakar ça fait ça fait cinquante ans waaw genn wàllu xarnu quoi mm-hmm. voilà mu ngoog jërëjëf merci beaucoup. jërëjëf jërëjëf. ñu ngi leen di jaajëfal lii nag moo doon seen limat bu njëkk si seen émission héritage ñu ngi leen di do jox dig daje fii ñaareelu ay bés jërë ngeen jëf.